Moustapha Guèye indicatif bu Cheikhul Khadim di taalibe sëñ Abdou Lahad Mbacke moom sëriñ Moustapha Massamba radiyallahu taala anhu di soppeeb sëñ Mbacke moom maam soxna Lo Diop Taïf radiyallahu taala anhuma tey ànd ak sëñ Montaxa ci liggéeyal sëriñ Touba saa su nekk te di ko ñaanal mu yàgg fi te wér tey roy Cheikh Abdou Lahad Mbacke ci dëgg radiyallahu taala anhu bokk jullit yi bokk taalibe yi niñ leen ko digge woon insha allahu noonu lañ ko fas yéene ànd ak yéen bu ànd ak dogalu suñ borom ci waajtaayu xisruna muharram ay waxtaan yi nga xam ne dañ ko ci amal ngir fàttali ci nit ñi istiwaaru seexul xadim ci ak dundam ak njabootam siwaar boobee nag day lu yaatu waaye ñu jagleel ko nag kenn ci ak njabootam te màcc ci ñi doon dund te jëkk ko fee wuutu jëf jooju mu jëfal yoon wi nag muy jëf ju rëy ba murit yi am ampleur bii mu am Tuuba am impact bi mu am loola day jaadu saa su nekk ñu di ko fàttalee ndax am na ci ñoo xam ne si dañ koo war a xam te xam googee lu leen di jariñ la ndax jëmm ju toll ni jii ñuy waxtaane ñu ne doomi seexul xadim la mag ci njabootam njëkk ko fee wuutu loola képp doyoon na ndam doyoon na aw taggit ndax lu jiitu lu nekk loola bu jubee rek luñ ca teg day jub te ay jëfam riis lool fees dell àddina te duutu fi jub ba mukk muy Cheikh Mamadou Moustapha al Karim waaye niñ ko baaxoo di defee nag mooy dañuy def saa suñu jëlee kenn ci kilifa yi fas yéene ko waxtaane dañ koy laltaaye aw askan ndax Serigne Touba njabootam gépp daf leen a tànn te yàllaa ko tànnal jaboot gi nga xam ne ñoo na a feeñ ci moom ndax liggéey bu rëy bi mu liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa bu ñu waxee nag ak tànn jubluwuñu di jël jëmm ci askan di ko tagg ca askan wa ndax askan wu mën a doon jaloore juñ mën a def ci baax rek lañ mën a yem waaye gën nag dafa nekk ci gannaaw baax nga xam ne dangay baax ba pare nag gën boo gënee nag ràññi ko loolu feeñ na ci Sëñ Tuuba li ma bëgg a wax kon askan wu ne ña ca bokk lu ñu rëy rëy ay jëf ku ci teerse ci Sëñ Tuuba rek foofa rek doyoon na présentation jëratul woon dolli dara waaye nag comme cosaan la loolu day jaadu ñu di ci def ab taxaw seetlu waaye nag méthode waxtaan bii nga xam ne léegi dañ koo jëlit nii nga xam ne ni la ko waxkat yi di faral di defee ci ay tàggaate ci ay askan loolu ñun dañ koo jombale kii nga xam ne mooy du Amadou Moustapha ñun buñ koy tagg ci ay jëfam yi lañ koy tagg waaye buñ koy tagg ci askanamit dañ koy tagg ci Serigne Touba rek buñ ko taggee ci Serigne Touba ak waajuram bu jigéen rek loola daanaka dafay doy ndax léeg-léeg nga gis koo xam ne day tagg nit ci buur boo xam ne sii ci la bokk buur yi àddina yi ñëpp xamoon nañ seenu doxin daanaka ay ceddo lañu woon te seenub xeex ak seenub xare dara loo xam ne que nii lislaam la woon amu ci dañ doon xare ngir yilif ay gox ak ay diwan te seeni bakkan rek lañ doon topp di xeex ak tubaab bi ci lu dul diine du jihad kon kooka nag boo koy askanale ni di ko ci tagg ba am ci ñooñu sax ne dañuy dem ba boo leen nee di wéy sa maam ci buur yi moo xam diwu buur bu sant Jóob wala buur bu sant Njaay ñoom ci seen bopp sax bokk nga ñu bokk ci sëñ tubaa dañ koy tege nee di bàkkoo loolu man sëtub diw laa man sëtub diw laa man sëtub diw laa te sët boobee ngay wax bu fekkoonte na ci moom képp nga yemoon kenn du la xam wala la ñuy askanale buur yi képp lañ lay askanale moo tax noonu nag sunu waxtaan ñuy xaw a téye ci lu mel noonu te léeg-léeg it nga topp càll la ba mu àgg ci koo xam ne xëy na dala neex te fekk na dogalub yàlla la waaye nag koom da ngay bëgg nag kuy lim te lim bu nekk dana dem ba teeri foo xam ne nag yenn saa yi doo bëggoon mu àgg fa waaye nag dogalub sëñ borom la moo tax nag noon sëñ Modou Moustapha mii tàgg wi danañ ko tagg ci lu gàtt ci aw askan waaye li mënta ñàkk rek askan woowu nag askanu kokki la ak askan wi nga xam ne mooy askanu saaxeewal Fatma ak askan wi nga xam ne mooy askanu ndaam ndax buñ ne kokk moom la ñuy wax Maxtaar Ndumbe ak saa xewar Fatma Diop Thioub ak ki xam ne mooy Aliou Sène Balo muy nga xam ne mooy doom yi ki nga xam ne mooy mbargu Demba Sène ba Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke mi ngi bokk ci néegub saa xewar Fatma saa xewar Fatma mii ñu bëgg a wax mu bëgg askanale Cheikh du Moustapha nag dafa amoon ay soxna yoo xam ne daf leen a yoroon. bokk na ci soxna yooyee ku ñuy wax soxna isa jéy soxna isa jéy moomu nag mu yoroon bokkut ak soxna isa jéy mi ñu baaxoo di dégg soxna isa jéy moom yi mu ca la am ku ñuy wax soxna joor Diop ak ku ñuy wax Aysatu Diop ak ku ñuy wax ma Masamba Diop ak ku ñuy wax Maxureja Diop ak ku ñuy wax Fatma ci bu Diop jëlaat soxna su ñuy wax soxna ñaan akan am ci madun soxna ñaan madun soxna ñaana ak ku ñuy wax Abdoulaye soxna ñaana ak ku ñu wax Maxtaar Ndumbe soxna ñaana ak ku ñuy wax Aminta soxna ñaana ku ñuy wax Binta soxna ñaana jëlaat soxna suñuy wax soxna yàlla xujja kumba sëy mi ñu doon wax léegi di doomi Ali Sene ba loo Ali Demba Sene ba moom mii gis nga ne am na ñu mbokkal ñooñ ci la bokk ak kilifa yi diine yu bari ci li nga xamante ne si mooy réew ma ba mu ko jëlee mu am ca ki nga xam ne moom lañuy wax wax Ahmadou Yàlla Diop ak Aminta Yàlla Diop Aminta Yàlla Diop mii nag di doomi ki nga xam ne mooy faat Fatma ak yàlla xuja kumba mi nga xam ne mooy doomi Ali Sénéba nga xam ne moom la ñu jëloon jox ko ki nga xam ne moom la ñuy wax Serigne Kokki Njaga Isa di doomi du Faa Xuja Diop di doomi Maxtaar Ndumbe maxtaan lu mel ni doomi Samba Ayib Diop mu am se ku ñuy wax xarit maam Diop ak Penda Guya Diop ak Marema Diop ak Ndaak Diop ak Aminta Samba ak Aminta ak Samba Aminta ak ku ñuy wax Maxtaar Xari Diop soxna Xari maam Diop moom mii nag di doomi ki nga xam ne moom la ñuy wax Aminta Diop Moussa Xewar ñu jël ko dénk ko ki nga xam ne. moom lañuy wax Madou Ndak Diané Madou Ndak Diané Diop nag lañ ko dénk mu am ca ku ñuy wax maam yaaba xarit maam maam yaaba mii nag mooy bàyyi soxna xarit maam mu ndaw mi nga xam ne moo jur sëriñ Ahmadou Tindooni ak sëriñ Aliyu ak sëriñ Abdou Salam Mbàkke sëriñ Mamadou Moustapha mii mooy seen bàyyi ba mu fa jógee nag ci kër Mouhamadou Ndak Diané jooju ñu jox ko tafsir Maxtaar Bintaloo di doomi Modou Mbaye toj ak ki nga xam ne moom la wax Binta Fall moom Anta Seck Khoudia mi nga xam ne moo bokk ak yàlla Khoudia Koumba ndey ak baay mu am ca amintaloo xarimaam amintaloo xarimaam moom yi nag ñu dénk ko ki nga xam ne mooy Seexul Xadim mu am ci ki nga xamante ne si mooy Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacke ak Cheikh Mouhamadul Lamine Baara Mbacke kon loolu mooy laltaayu waxtaan wi ñu fas yéene tàmbali ci waajtaayu Isroul Muharram ñëw nag ci jëmmu ji ak gane jamonoom ak i jaar-jaaram Cheikh Mouhamadul Moustapha mi ngi gane jamono ci dëkk bii nga xam ne moom la Serigne Touba njëkk a gor te moom la ñuy wax Darou Salaam ñii wax nañ ne. benn fan ci aw tamxarit la ci la feeñ ñu wax ko sëriñ bi ca ñetti fan ya ñii wax na ca ñetti fan ya la feeñ ñu tudd ko ca fukki fan ya waaye nag fi ñu jëlee istibaar bi wax na ne sëriñ Mahamadou Lamine Diop Dagana moo nettali Cheikh Mamadou Fadal moo ko wax ne ko sëriñ Mouhamadou Moustapha mi ngi gane àddina guddik fukki fan ak benn ci weeru tamxarit nee na man Cheikh Mamadou Fadal ma gane jamono guddik ñaar fukki fan ak juróom-ñaar muy kasru rajabin loola nekk lu am solo waaye mi ngi dëppoog ci weeru tubaab le 17 septembre 1888 ci miladiya yamoog 1306 di wasasin wax na ne ba ñu demee ba ca ñaar fukki fan ya ak juróom-ñett ca rakkaati gàmmu ca atum Tassasine 1309 dëppoo 1891 ci miladiya ca la Cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbàkke mi bokk ak Cheikh Mouhamadul Moustapha ndey ak baay gane àddina ba ñu demee nag ba ci ñaar fukki fan ya ak ñaar ci weeru koor di bisub talaata nekk guddik àllarba ci atum yasasin di dëppook 1892 ci miladiya la soxna Aminta Lo wàcc ab liggéey ci jaayante gi nga xam ne jaayante woon na ko ak Serigne Touba ci histoire boobu ngeen di dégg fekk na booba it Cheikh Mouhamadou Mamoun Mbacké moom borom gaawaan moom maam maam Cheikh Anta Mbacké yaayam ji tudd soxna Astu Buri Kan booba fekk na mu wàcc liggéey soxna Asta Buri Kandi fekk na boobu mu wàcc liggéey bi mu juddoo nag ñu andi woon ko nag jox ko ki nga xam ne mooy soxna amuntaloo mu boole ko ki nga xam ne mooy Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke ba yàlla dogalee nag soxna amintaloo wàcc ab liggéey fan yooyu waajuru Cheikh Mamadou Faadal ñu koy wax soxna Abu Busa moo leen yor waaye ñu dem bu mujj Serigne Touba daal leen jox ki nga xam ne moom la ñuy wax soxna Faati Balla soxna Faati Balla nag moom la ñuy wax soxna Faati Balla soxla mooy maam yi Sëriñ Moodu Maamun Mbàkke mu jox leen ko boole kook am xar mu jigéen xar moomee nag lay jël di ko rat di leen jox foofu la nekk rek ba fer bañ feree ca at moom yi itam Sëriñ Tuuba dem ca gànnaar ci déwénta di atum ay sasin 1314 wala 1311 la sëriñ bi tàmbalee nag jeexatam ju mag jooju ji muy wax bi mu tàmbalee nag ci atum 1311 ci hijriya ba 1920 di kasasin loolee nag nekk histoire bu rëy loolu kon mooy historique bu Cheikh Mamadou Moustapha kon bu nu ñëwee nag léegi. ci am njàngam ci du Moustapha Mbacke bi mu dalee waree dal jàng Serigne Touba moo ko dalal jàng moo ko rakkam gi Cheikh Mamadou Fadal Mbacke ak baayam taxam boobu muy Serigne Omar Mbacke gelongal ñoo dalandoo jàng benn bis rek la sëy bi xëy woolu leen fële nga xam ne mooy kër gi ñuy wax Darou Rahman muy kër sëñ Soy bu Mbacke gii tey nga xam ne fi la nekk loolu bi mu ko defee mag ñi dañoo tudde woon kër googu li nga xamante ne si mooy tur wi daru naar ngir la fa sëriñ bi daan dalal gani naar yi ba mu leen daan dalal nag ci kër googa ca taatu dimbu la leen daan dalal foofu yi nag la leen sëriñ bi dalale jàng moo leen jàngal jàngal leen boppam ba ñu àgg ci suuratu yaasin ci diir bi mu nekkee Tuubaa ci juróom-ñaari at yooyu bi yàlla dogalee sëñ bi war fee jóge nag dem liggéeyal sallallahu alayhi wa sallam war a dem Mbàkke Bari ci la jële jëlee sëñ Omar Mbàkke gelongal moomee nga xam ne moo doon dalandoog sëñ Mouhamadou Fadal ak sëñ Modou Moustapha daal di woo sëñ Abdourahmane Lo jox ko ko sëñ Mouhamadou Moustapha ak Cheikh Mouhamadou nag mu yóbbaale leen ba muy dem ci tukki bi biir bu gàtt boobu mu nekk fi nga xam ne mooy Mbàkke Bari mu nekk fa ak ñoom bi muy dem ci tukki bi nag mu woo maam Thierno ba mu ñëw. daal leen di jox ñaar ñooñu muy Cheikh Amadou Moustapha ak Cheikh Mamadou Fadal wax nag leen na leen na nga leen yare Touba su mënee nekk su mënta nekk nag feneen te soof suñu borom rek foofa neex na ma waaye nag jox gii ma la ko jox bu ñu jàngam bu ñu buun bu ñu salañ ñett yooyu la ko dénkoon ci ñoom maam Thierno nag daal leen di jël. jox leen sëriñ Daam Abdourahman Lo ci diir bi nga xam ne yor na leen ko ci ay guy nguraag ak jafe-jafe yeeg ak bi ko tubaab yi génnee fi nga xam ne mooy Touba sëriñ Mouhamadou Moustapha sunu borom bi am xelam mu teel a wattu alxuraan lool ci fukki atam ci la teel a nag wattu li nga xamante ne si mooy alxuraan ñu taxawu ko taxawaay bu rafet ba mu wattu alxuraan ba bind ab kaamil ñu daal di ko yónnee ki nga xam ne mooy Serigne Touba ci géej moo tax turam boobu ñu koy faral di woowee te kuñ koy woowee nga xam ne ci moom lañ ko duppee muy Kamal Kamal joojee ci fukki atam yooyu mu bind Kamil ba Kamil ba fekk sëñ tubaa ca Kamal joojee la ko amee te deerul alimal xabir muy ndàmpe la ko amee ba alxuraan ja nag mu daal di tàmbali njàngum xam-xamam moom Cheikh Mamadou Moustapha waaye mi ngi ko tàmbalee ci maam Thierno maam Thierno Ibrahim Fatih gii nga xam ne moom la ñuy ab diir bu néew mu daal di tàmbali nag di xëy ci maam Jaara di gont ci ki nga xam ne mooy maam Thierno bu jàngee ci kii jàng ci kii bu xëyee ci kii gont ci kii nii la saxoo nag di jàng xam-xam ba àgg ci atum 1902 di Serigne tuubaa di ñibbisi ci géej gi fekk maam Thierno defal ko ci la nga xam ne moom la ko sëñ Touba santoon te na mu gën a rafete nag muy am xam-xam. am ab yar am diine kon nag mbokk yi dañoo bëgg waxtaan wi yaatu moo tax audio yi dañ koy xaw a gàttal kon ñëw nañ ci aw askanam ñëw ci juddoom ñëw ci njàngum alxuraan ñëw ci njàngum xam-xamam kon nag léegi bu yàlla dogalee ñu dirsiwaat ci ñaari waxtaan wi dañuy ñëw nag ci ni nga xamante ni si mooy ak nekkam diggam ak Serigne Touba Xaadimu Rasuul su ko defee kon bokk yi waxtaan wi jeexul waaye dañuy joxe rendez-vous rek incha allah ci ñaareelu xaaj bi ñu ñëw nag ci li nga xam ne mooy ak nekkam ak Serigne Touba ci jege gi mu ko jege woon ak jikko yi nga xam ne def na ko ci moom ba bi mu ko wóotoo ñu gis ne feeñ na ci loolu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.